sant yàlla julli si yonente bi di sant suñu ñaari waajur woon ak jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba eh, jaaraama maam Cheikh Fall ci loolu la ko sëñ di nuy àdduna bi yëpp di nuyu Ngor Yoff Waxaam Almadi Taraawo di nuyu Ngor ñëpp ñëpp ñëpp di ko teg su loxo chef de village maam Babou Samb ak Cheikh la na eh, di sant ñëpp di sant maire yi toog nii ñu ama seen fay quoi eh, yal na leen fi yàlla bàyyi ba si kanam bañ mën a fekkee sama njëriñ incha allahu rabbi suñu xol daal lañ ko tubee daal yal na leen fi yàlla bàyyi maa leen di ma jégaluwaat di leen masawu si coono yi ñoom ñëpp maa leen di jégalu bu baax xam naa ne ñaan nañ bu baax a baax ndaxte ñaan yi yegsi na di wax rek ñu gën ko yokk rek ba yàlla bàyyi leen fi bañ mën a fekkee suñu njëriñ du nuyu ngor ñëpp jeunesse bi ñëpp maa li sant bu baax a baax a baax ndaxte tey wuyu si nañ ma. Eh, xale laa ay xale la ñoom tamit ndaxte tey wuyu nañ ma ko waa maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñëpp di sant ñëpp fu waay mënta nekk rek ñaanal ma te gisuma la fu waay mënta nekk génnelal génnelal ma sarax te gisuma la maa lay sant di la gërëm maa lay sant di la gërëm bu baax a baax di wax ne yàlla boo ko rëccu yow na gën a yokku daal

waaw coole du leen du dul làmb woon rek eh, amaana dañuy foog ñu wax ñu jaay làmb ji quoi eh, ñu nekk ñaari xale mu nekk sama premier grand combat mu nekk premier grand combat am te biñ ñëwee tamit eh, war ñu yaafus quoi mobiliser na mobiliser na ñaati bi du leen du dul fulla ak fayda rek ak jom ak jàmbaar xam nga rek ñun bu ñu wootee rek ñun dañuy ñëw ñun boo ñu fekkee ñu toog rek yow mbooloo la quoi. ba ñu fekkee ñu toog nii nii di waxtaan rek ñëpp ñooñu toog et eh, di sant nag xale yu ndaw yi chaque jour man ak ñoom quoi ba entraînement xale yu ndaw yëpp ñi xamante ne xamaguñu dara bilaay maa leen di sant di jégalu seeni yaay bu baax di jégalu seeni i papa tam bu baax si xale yu ndaw yi ñuy bàyyi seen jàng xam nga maa ngi siy jégalu bu baax a baax a baax. nga doon bëre premier troisième combat quatrième combat bi nga dugg gis stade bi nu mel lan nga waaw du lenn. lii eh, li nekk suñu kanam lii nii man passé na quoi ndaxte am na yeneen bis yu nekk suñu kanam. non tey bi nga dugg sa bi loo yëg. waaw li ma yëg mooy du du lenn daal lu dul sant ñi gaa yëpp eh, di sant ñëpp ñëpp jàpp nañ si quoi di sant góor ñi ak jigéen ñi ñim dañuy dagg seen nelaw eh, su ma limee kenn rek damay juum bilaay. di leen sant ñoom ñëpp ñëpp ñëpp muy jigéen ñi di gën santaat jigéen ñi yee fu ñu mënta fëgg fëgg nañ ko di leen sant bu baax a baax a baax daa làmb daa metti quoi te ñun ay xale lañ amaana ñun boo ñu gisee dañuy yaakaar ñu ngi ak lépp billaay mais dañu sant yàlla quoi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax kon ñu ngi lekk di naan yee ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax mais daa metti quoi di wax rek waaw ah, gars yi ñëw jàpp pour coono yi gën a tegeeku si ñii nii parce que ñoom dañuy jël seen xaalis xam nga yow di ko si def si lépp kon dama leen di maasawu di leen jégalu bu baax a baax a baax. dama bëgg ñëw ci làmb ji après di nga sant di nga gërëm ah, di nga masawu ñëpp mais dama bëgg ñëw ci làmb ji ndax gis nañ bi nga bi nga ñëwee tuus tuus nga tuus mu neex yëngal stade bi wane ne damaa bokk ci làmb motivation du leen lu dul li ma waxoon rek. ma ne leen la siis laay ñëw wax waa làmb yi salaamaaleykum suñ ma fayul yeneen bés yi dañuy ñëw dinañ ma tontu na ma maaleykum salaam amaana xaw ma naa fay nañu wala fayuñu yee mais yeneen bés yi nekk suñu kanam gëm naa ne dinañ ma tontu maaleykum salaam quoi yow wax na làmb na ma bàyyi xel quoi et dama see bokk dama see am wàll quoi di ñaanal mbër ngoor yëpp ku si am combat yaa la yàlla may ndam te ku si am combat sama xol laa ko tubee yaa la yàlla may mbëri ngor yëpp maa leen di ñaanal ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ku amagul combat yal na am combat eh incha allah. ñu ñëw ci digg jiw Habib Sifle sa diggante caatu lu leen parce que dafa am lu mu waxoon kii gën a nekk xale ak kii gën a daj ay coono. ak ki gën a liggéey si combat bi gën a fere si combat bi yal na yàlla may ndam ma noonu laa ñëwee parce que dama see ko waaw bii di ñëw yal nañ koy gis bu amaatee combat yal na ko yàlla may ndam. dañoo bëgg nga ñëw ci tey les sources yi parce que caatu bés dafa bëreeg ay ndaanaan bëreek Boy Sarr bëreeg ñoom nëpp bëreeg Alliance Balde bëreeg ndaanaan yu bëri Tidiane Faye 2 bëreeg Soxor Kelle ñoom ñëpp ñu daan leen. te bi mu leen di daan même moom buñ koy daan day metti buy daan day metti mais tey dañu ñëw gis nga daan ko facilement te ci biir stade bi dama dégg gars yi nag carrément mystiquement da nga am foo ko dugal ba mu liw. waaw dugaluma ko fenn lu loolu ñaari maire yi toog nii ñi toog nii ñoo may ñaanal rek ndax man du ma du ma def nit ko bon quoi xaw ma loolu yore ñu ma loolu. damaa waajal ak samay mbokk rek te damaa waajal ak samay mbokk rek ñu ñaanal ma bu baax a baax a baax yee fépp fu kilifa fu mu nekk rek yóbbu nañ ma fa ñu ñaanal ma bu baax a baax a baax yee man du ma def nit lu bon quoi amaana moom waaj na ak i mbokkaam ñëw parce que dama ko ko waxoon waajal yaay say mbokk man làmba ji du ma si may dara parce que caaxaan taxul ma dugg si te damaa bëgg dimbali ñu barey damaa bëgg jàppale ñu barey du caaxaan moo tax mu dugg si làmb yee yàlla baax na daal. macha boo gisee ñu wax la lool dañu gis nga bëre caatu Mbombay mu metti nga ñëwaat aussi tamit amaat beneen combat suuru làmbu jag si nga am ndam nga amaat beneen combat yow bu ndaw am ndam nga amaat beneen combat yow ak mu metti lool nga am ndam mais sa combat bii nii dañu gis ne macha allah moo gën a yomb ci sa combat te aussi tamit ki ngay bëreel moo la jiitu ci làmb ñii ne moo la ëpp doole lan moo tax mu gën a yomb ci combat beneen question bi nga jàppanteeg moom ndax doole ji ji ñuy wax ci moom yëg nga ko wala yëgoo ko lan moo tax mu gën a yomb. waaw liggéey na champion la moom ab ay combat maa ngi koy si li ma jël sax moom api i combat moom ab i victoire eh, maa ngi koy sant si li mu ma jël eh, bu baax maa ngi ko siy sant quoi eh, liggéey na bu baax am na doole moom indi na doole bu baax a baax a baax mais làmba ji man dama see daj ay coono. waaw li tax mu gaawut <laughs> noonu noonu la waroon demee rek <laughs> noonu la waroon demee quoi bilaay ah waaw yi ma doon tànde waaw parce que booy bool daf waaw daf maa woo conseil ma xam noonu rek moo ma jox clé bi waaw damaa woo conseil ma xam noonu ma def ko noonu démb ma koy sant bu baax a baax booy bool di wax na na si gën a jàpp yee damaa bëgg a dem États-Unis ñëwaat ut doole ñëwaat incha allah. ah. waaw. combat bi non non naa mu gën parce que loolu laa indi woon quoi et eh, naa mu dóor ma ma dóor ko yee eh, kon suñu maire yi ni ñu koy waxee rek bëggoon naa ñu jure eh, waaw bëggoon kon ñu koy waxee ak suñu maire yi rek bëggoon naa ñu jure ànd ñu ngor moom waaw liiru ngor bu doon génn sax ngor ñëpp ay mobilise ñu loolu la ñu xamee quoi bëggoon naa ñu jure ba pare mais kontaan ni la ko yàlla tuddee rek dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax. bi nga ko dóoree nga sant ne da du lenn yee parce que dañ maa dañ maa teeyiloo rek yee dañ maa teeyiloo moo tax ma teey si loolu yee moo tax. sa sa daa am lu mu la wax ci combat bi. saa Touba waaw maa ngoy sant bu baax yaa ma jóge Touba sax dem naa këram waaw maa ngoy sant bu baax a baax saa Touba waaw. am la waxoon ci combat saa waaw <laughs> bu baax a baax keñ léegi làmb ji na fan nga jëm waaw fi ma jëm mooy man mënuma tudd benn mbër te damay déglu samay kilifa ku ma làmb boole rek man bàyyi moo fi kenn ku ma làmb boole damay bërek yow caat ki mu mujj a bëre Liss que ba mu jeexee te moom ñëw na ci stade bi te bi mu jeexee amateur yi neen Liss Ndiago Siteu bu waaw ama loolu Liss da ngay ñaanal CNG xam nga ñu teggil kat daan biñ ko teg noonu xam nga. yee mooy aj biñ ko aj noonu ñu ngi ñaan CNG xam nga ñu teggil ko ko daa métti quoi yee tax xale daa nekk si yoonam. Liss moo mujjee daan caatu rëbës yaa mujjee daan caatu rëbës. waaw man instant mën ma tudd benn adversaire yee waaw yéen ko tudd rek mais samay kilifa. yow kuñ ma wax rek man kooku laay bëre. liis man du man war laa dëgg yow. waaw wax ah. bu ne liis nag. waaw ñoom lu ñu wax rek loolu la lu xaay rek xaay na barke yàlla lu xaay rek xaay na lu ñëw baax na man samay kilifa rek laay lu man amal dara lu may bañ samay waaw lu ñëw baax na man lii di yeewoo parcelle laa bëgg muy yeewoo ngor de. loolu moom waaw loolu li li yow a li Modou loo yor noonu waaw suñ ma koy jox Modou Lo sax su xeeb waaw suñ ma koy joxoon sax ñu jëflante bilaay waaw waaw di sant ñëpp di sant ñëpp yow di santat di ñi maire yi ak ñi xamante ne su suba ba léegi ñoo ngi su waañ bi quoi ñi xamante ne su suba ba léegi ñoo ngi su waañ bi maa di sant bu baax a baax a baax a baax di sant ñi ma ñaanal ñëpp di sant ñi ma ñaanal ñëpp eh, di sant saa baa di sant Sirif Waluna maa ngay sant bu baax a baax eh, di sant sëñ Matar Mbacke maa ngi koy sant bu baax baax a baax ñaanal na ma si bu baax maa ngi sant àdduna di sant ñëpp di sant saa Touba maa ngi sant ñëpp ñëpp aw ma seen fay eh, di sant xale yu ndaw bi maa ngi di santaat bu baax a baax di wax ne kontaan naa si ñoom kontaan naa si ñëpp kontaan naa si Ngor Yoff Waxaam ñëpp eh, di kontaan si may sami toog nii kii saa yu ma amee combat day bàyyi lépp jóge ba jaamu gën xam nga mooy loolu maa ngi sant bu baax a baax a baax may sa seeraas eh, borom dawali yee fu waaye man ta jóge tey ñëw si bis bi rek sant naa la muy ñuy jóge Pikine ñuy jóge Touba ñuy jóge Louga ñëpp sant naa leen bu baax a baax a baax ñuy jóge Gambie ñëpp ñoom Gambien ñëpp sant naa leen yee fu waaye man ta jóge rek sant naa la ñu lim ñëpp quoi mais ku limul rek ñooñu jégalu ñu xam ne xam nga rek xelal mooy xelal fatu quoi di sant sëñ Maam Mor sëñ Maam Mor Céemaan maa ngi sant bu baax a baax ñaanal na ma si combat bu baax a baax baax a baax di wax nag caatu rëbës waaw làmba moo ngi si kanamam lamba moo ngi si kanamam quoi comprendre nga lamba moo ngi si kanamam na gën a góorgóorlu gën a liggéey ànd ay mbokkaam liggéeyaat di sant monsieur le maire ati jàpp na si combat bi quoi Adi maa koy sant bu baax a baax di sant tamit suñu maire bi fi ne Mama Gueye laay yee eh, jàpp na si maa ngi sant bu baax a baax di sant ngor ñëpp yee eh, eh, di santaat maire yi toog ñii ñëpp di leen santaat du ma doyoo si sant bi quoi. yow di jégalu boo yëpp di jégaluwaat tamit koñ bi yëpp si dérangement yi di jégalu dëkkandoo yëpp si dérangement bi ñëpp ñëpp maa ngi leen di jégalu bu baax a baax yee maa ngi jégalu ñëpp yee di lancer benn message rek. yee mooy ci état quoi mooy boo xamante ne caabi da leen féetee ginnaaw ñu ngi koy ñaan mu jéem si jàpp rek yee mu jéem leen libéré quoi naata duñ ay tooñkat quoi ay xale lañ di liggéey xam nga di daan seen doole kon lu bare mun leen di raw quoi ñuy ñaan état mu jéem leen a rek ñu tamit ñu koy dékkaa suñuy loxo Macky Sall di ko ñaanaat mu jéem ñu si si piste bi li xam te ne jeune Ngor yëpp Yoff Ouakam ñu ngi koy xeex ñu ngi koy dékkaa suñu loxo di ko gën a ñaanaat mu bàyyi si xel quoi di jégalu lépp lépp lu fi wax juum rek ñoo ngi jégalu bu baax a baax di santaal yaay Thiaw bu baax amu fayam quoi. jërëjëf yaakaar naa si bu Ngor la woon moom lañ leen andiloon ba beneen yoon incha allah